jiital ci nuyoo bi ak ndokkeel gi cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifat al aam li taif al muridiya xafizahu llahu wa raahu wa ayadahu wa nasara euh, di nuyu Serigne Modou Mahfouz bi nga xam ne mooy xalifa soxna si di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla sàmm ko wattu ko ba mu eggale ak mbébét yëpp ci darajey shahru ramadan al mubarak di nuyu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi eh, di ko siyaare bu baax a baax te di ko ndokkeel ci bis bi eh, di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñooy taxawe bis bi eh, ñoom ñëpp ngi leen di nuyu te leen siyaare ni ñu ko waxee rek sànq bis bi moom ñaari tomb rek la waaye di ñaari tomb yu am solo bu njëkk bi mooy jëmmi laylatul xadr nga xam ne moom aw turam rek tur tur tur woowu ñu ko tuddee rek wane na dimension wane na moom euh, ni mu toll ndax yàlla ko ko tuddee du kenn ku moo ko tuddee laylatul xadr guddi gu am daraja guddi gu am solo di guddi goo xam ne suñu borom bari na lum ci dogal ci biir guddi googu nga xam ne bari na loo xam ne doomu aadama euh, ci mbiram yëpp ci guddi googu bu dikkee suñu borom subhaanahu wa taala ci la koy dogal muy guddi goo xam ne lii sababu euh, yàlla jox ko xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di euh, yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jison ne xeetam bi seen fan dafa guddut ni xeet yi nga xam ne ñoo ko jiitoon xeet yi ko jiitoon dañ daan am fan yu gudd lool ñii di am juróomi téeméeri at di am juróom benn at ñii di am sax ba ay junni at waaye mu gis ne xeetam bi moom euh, seenu fan taxu leen gudd te fan wu gudd dafa am solo lool ndax ci nga mën a liggéeyale yàlla lu bari ci nga mën a defee lu bari loo xam ne dalay amal njariñ amal njëriñ diine ji amal njëriñ xeet wi mu xemme moon nag loolu ci aw xeetam suñu borom subhaanahu wa taala eh, jox ko laylatul qadr ne ko loolu yi ngay xemme mu ngi ci biir laylatul qadr daal di koy wax ne ko laylatul qadri xayrun min alfi shahr guddi la goo xam ne am na wàccuwaayu junniy weer junniy weer boo ko seetee juróom-ñaar fukki at yu tegal la juróom-ñaar fukki at yoo xam ne nit jaamu na ko yàlla bu laylatul xadar dikkee nit jaamu ca yàlla suñu borom jox ko yoolu juróom-ñaar fukki at yooyu te tegal kon loola moom la yonent bi alayhi salaatu bëggoon ba moo taxoon mu doon xemmem euh, laylatul euh, xemmem seenu fan wu gudd suñu borom defal ko ci loolu muy guddi goo xam ne it muy anniversaire u alxuraan mën nañoo wax ne ani alxuraan ci guddi googu la ko yàlla wàcc euh, muy lu am solo si ndax alxuraan mooy li nga xam ne mooy téereb yàlla bi nga xam ne ci la moom la wàcce euh, rëdd ci mboolem loo xam ne bëgg na doomu aadama yi di ko doxalee seen adduna ak seen diine ba àdduna tukki lépp loo xam ne si yàlla soxla na ko rek wala mu bëgg ko rek wala mu digle ko def na ko ci téere boobu euh, moo tax guddi googu mooy anniversaire u alquran moom ak Kazu Rajab dañoo bëgg dañoo bokk ay mbir kee mooy anniversaire julli kii mooy anniversaire u alquran muy lu am solo loo xam ne jullit yi euh, bu ñu ko xamoon danañ ko gën a fonk ndax lislaam bu ñu koy wax alxuraan tax ñu di ko wax lislaam bu ñu koy tagg moom mooy téere bi nga xam ne euh, moo indi loo xam ne téere yi fi jëkkoon jiitu ko fi indi na ko indi li nga xam ne moom lañ tollool tey jii indi itam li nga xam ne mooy ñëw ëllëg waaw almaadi wal xaadir wal mustaqbal mboolem yooyu yëpp alxuraan da koo làmboo kon ci guddi googu la ko suñu borom subhaanahu wa taala wàcce ci asamaan si di ko wàcce nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mat ñaar fukki at ak ñett loolu nag daal di nekk loo xam ne lépp loo xam ne sunu borom bëgg na ko rek wax na ko ci biir téere boobu te loolu lépp mi ngi ko wàcce ci genn guddi gii nga xam ne mooy laylatul xadr muy guddi goo xam ne Eh, yonent bi alayhi salaatu ko lool te fonk ndax dafa daan wax soxna Aïcha radiallahu anhu ne ko eh, mooy guddi gi nga xam ne lépp lu ci nit ñaan suñu borom subhaanahu wa taala da koy nangu Aïcha laaj ko ne ko waaw guddi googu bu dikkee man lu may wax eh, allahuma innaka afuwun mu ne ko del wax allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna mu ne ko loolu nga ciy wax yàlla yaay ki nga xam ne ab kon nga eh, te it dangaa bëgg képp koo xam ne nit nga ngay jéggale kon nag maa ngi lay ñaan nga jégal ma mu ne ko loolu dal nit mënut a wax lu gën baat yooyu ci bisub laylatul qadr waaw ndax doomu aadama li nga xam ne moo koy gàllankoor lépp mooy bakkaaram bakkaar mooy jëng bi nga xam ne waxtu wu ko nit amee rek dina bari lu mu war a fa mu waroon a egg te du fa egg ci wàllu yàlla ndax bakkaar saa bu ko nit amee te yàlla jégalu ko dana tee mu jàng alxuraan am na bakkaar yoo xam ne day tey jàng nga xam ne boo ko amee da bëgg a jàng sax te doo ko am na bakkaar yoo xam ne day tee nga julli boo bëggoon julli sax day mel ni dala tënk doo ko mën am na bàkkaar yoo xam ne day tee nga fab sa alal di ko joxe yooyu yëpp moo tax ñu ne bàkkaar moom mooy problème mooy li nga xam ne bu ko nit fexee ba suñu borom dugut séqati ko suñu borom rek fu mu mën a fu mu bëgg a egg rek mën na faa egg waaye saa soo xamee ne bàkkaar am na rek doomu aadama am na lu ko gàllankoor moo tax yonent bi tànn e, ak njëgal ñaan yàlla ak njëggal ci guddi googu nga xam ne lu ci nit ñaan yàlla boo ko ñaanee suñu borom subhanahu wa dana la ko may yàlla wax ne tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlai alfajr malaaka yi suñu borom da di yabal ñu wàcc fii ci kaw suuf ànd ak sidna jibril mu jiite leen mooy ruux moo tax mu ne tanazzalu almalaikatu warruux fiha bi izni rabbihim loo xam ne nag yàlla moo leen ko digal ñu wàcc ci kaw suuf eh, di wax nit ñi salaamun aleykum wax nañ ne ku ñu dajal danañ la ko wax kër guñ dugg danañ ko fa wax eh, lu dul rek kër goo xam ne lu mel ni xeeti mala yi nga xam ne dañu koy bañ mu lu mel ni li ñuy tuddee mbaam xuux eh, wala lu mel ni li ñuy tuddee kalbu wala ñaari nit ñoo xam ne dañoo jubadikoo te te defaroowuñ ci seen diggante ñooñu rek yooyu rek ñoo ci dul bokk kër goo xam ne loolu am na fa duñ fa dugg waaye yépp kër goo xam ne itam ña fa nekk am na lu dox seen diggante ci xeeti ñàkk a juboo te juboowuñu ñoom bu laylatul xadar dikkee bokk nañ ci ñi nga xam ne malaaka yi duñ jaar ci ñoom duñ dugg ci seen kër te duñ wax ak ñoom dara kon loolu itam day wane ne guddi la goo xam ne bu dikkee war nañ cee fexe ba nit ñi jubawutoon nit ñi nga xamante ne dafa am lu doxoon seen diggante ñu fexe ba rafetoo ñu fexe ba kenn ku nekk defaroo ak sa moroom ñii defaree itam bis boobu bu dikkee mu nekk occasion boo xam ne dañuy defare nit ñi ndax gannaaw euh, xéewal gu rëy googu ci am euh, ñu jubawul ñu ne ñoom duñ ca bokk kon fexe ba nit ñi juboo guddi googu occasion la ci euh, loolu nag mooy continuer ba ba julli fajar xéewal yooyu yëpp day wàcc ci doomu aadama yi ba ba julli fajar kon guddi gu mag la guddi gu tedd la goo xam ne bu dikkee bëgg nañu ñu fonk ko lool sëñ Tuubaa radiyallahu anhu fonkoon na guddi gi lool way na ci lu bare bare bare bari na xasaayit yu mu ci def yoo xam ne xëy na jetaay bi dafay xaw a xat ba duñ ko mën a détaillé andi ko noonu waaye nag <clears throat> lu bare bare bari la euh, kon loolu moo war a lool euh, soxna si sëñ bi fonkal ko boppam euh, ndax sëñ Tuubaa dafa fonkoon alxuraan fonk koor fonk bisu guddig Laylatul Qadr ñett yëf yi moom sëñ Tuubaa fonkoon na ko lool alxuraan Euh, koor ak laylatul xadr alxuraan moom kenn ku ne gis na ni mu ko fonke woon euh, fu ne wax na fa ne euh, alxuraan mooy sama diine alxuraan mooy suma xarit alxuraan mooy sama wéttal alxuraan moo ma teg ci yoonu siraatal mustaqim ba li ma am lépp ma ko kitaabu ko diini wa huwa xilli wa si hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi sabba kon foofu la tegoon alxuraan nee na lim am lépp alxuraan ak ko may fi mu egg ci yàlla fépp ci alxuraan la jaar ba sunu borom subhaanahu wa taala may ko ko kon guddi gi nga xam ne ci la alxuraan wàccee moo taxoon sëriñ bi jox ko euh, fonk ko lool réel ko lool way ci lu ne wax ci lu ne loolu moo tax Euh, soxna su tedd si naa egg guñ foofu euh, loolu kon mooy ci gàttal rek dama ko gàttal rek dama ko résumé waaye guddi gën naa yaatu loolu euh, ma wax ci yi nga xam ne moo ci gën a am solo rek kon bu dikkee mooy guddi gi nga xam ne bu dikkee lu ci waay man ci jàng alxuraan lu ci waaye man ci saraxe lu ci waaye man ci jokk bokk ci lu ci waaye man ci taxaw ñi nga xam ne dañoo néew doole lu ci nit man rek Mm, laaj na ko ndax loolu yi incha allah bu ñu egsee ci soxna si ak ni mu fonkee woon guddi gi ak li nga xam ne moom la ci daan def danañ ci wax lu bare bare incha allahu taala ñoo ngi yëkkati ay nuyoo yu sell di ko jëmale bépp julit di ko jëmale bépp taalibe ci weer wu tedd wii di ci ndokkeel ñëpp nag di ñaan lépp loo xamee ne joxe nañ ko ci ay jaamu yàlla suñu boroom nangul ñu ko te may ñu kàttan ba lim ci santaane lépp ñu def ko na mu ko bëggee di ñaan itam bis bii nga xamee ne moom la waajal eh, lépp luñ ci def ci ay jaamu yàlla suñ borom nangu ko jotale ko soxna may munatu mbàkke ak soxna maam buso bali mbàkke ñi nga xamee ne ñoo doon eh, soxna may mi nga xamee ne moo sos bis te liin ci organise ci ay waxtaan dafa nekk euh, prolongement ci ay ak li euh, ndax soxna si euh, ab jàngalekat la woon ab yarkat la woon suñ borom dafa wax ci alquran ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasula minhum yatlu alayhim wa ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaab wal xikma wa in kaanu min qabli fi dalaalin mubin nee na ma yónni ci yéen ab yonant ana la tax ma yónni ko ngir mu jàngal leen ngir mu jàngal leen alquran waaye jàngal leen xam-xam waaye ngir mu yar leen def ci yéen ay jikko yu rafet kon jàngale ak yare ci mission yonente bi sallallahu alayhi wa ci la bokkoon waaye soxna si itam loolu moo nekkoon liggéeyam eh, li mu nekk ci àdduna yépp kon ñu ngi ñaan eh, suñ borom nangu jataayu tedd yi te jotale ko ci njaboot gi mu fi bàyyi tam mu teg ci loxo ah, ni ni ko sunu ustaas bi waxe rek sëñ Moustapha Diatara gëneelu laylu xadr suñ borom moo ko màggal ci alquran moo wax ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka man maa wàcc alquran ci guddi goo xamee ne dama cee def barke barke nag mooy lépp loo def ci guddi gi ci ay jaamu yàlla suñ borom daf la koy fulal waaye lépp loo xamee ne def nga ko ci ay moy yàlla moomit it euh, ful moy nga ni ko Cheikhul daan waxe rek mooy yàlla jamono jëpp la bone waaye rawatina weeru koor waaye jaamu yàlla jamono yëpp la baaxe waaye rawatina weeru koor ndax mooy weer wi nga xamee ne suñ borom def ko barkeel te suñu borom dafa bokk ci yërmandeem ak ngëneelam buy jëflanteek ñun ci sunuy ñaawteef ak maandoom lay jëflante ñun ak ci sunuy ñaawteef waaye sunuy xasanaat ak sunuy jëf yu baax bu ci jëflanteek ñun ci ngëneelam lay jëflanteek ñun moo tax mu wax ci alxuraan ne ku def lu baax dinaa la fay ba mat fukk man jaa abil xasanati fa lahu ashru amthaliha wa man jaa bi sayati fala yuza illa mithlaha waaye fukk boobu man mën na koo ëpp ndax eh, bi muy wax li muy fay ñi nga xamee ne dañuy joxe seen alal ci yoonu yàlla ci yoonu lislaam nee na da leen koy fulal ba mat juróom-ñaar téeméer masalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin ambatat sabaa sanabila fi kulli sumbalatin miatu xabba wallahu yudaifu ma yacha nee na ñi nga xamee ne dañuy joxe seen alal ci yoonu yàlla dama leen koy fulal ba mat juróom-ñaari téeméer ni may barkele mbay noonu lay barkele ku joxe sa alal ci yoonu lislaam waaye ful googu itam mën naa dem ba kenn du xam fu mu yem ndax eh, suñu borom ci jëmmam mi ngi wax ne innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaab nee na ñi nga xamee ne ay muñ muñkat lan bu ma leen di fay dama koy jóor duma ko compter aju ci ab lim kon day wane muñ euh, ngëneel lim am ci lislaam waaye koor itam noonu la toll ci suñu boroom ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci xadis boo xamee ne xadisul qudsi la nee yàlla dafa wax ne asawmu lii wa ana ajzi bihi dafa jël koor euh, féete la ko boppam nee na man euh, maa féetewoo koor kon maa koy fayal sama bopp suñu borom nag ku ne xam na ne euh, ci ngëneelam ak yërmandeem ak ci taw buy fay fay googu amut amut yamukaay kon loolu bokk na ci bokk na ci ngëneelul weer wi weeru koor wi bokk na ci ngëneelul weeru koor wi itam dafa bokk ci ponki lislaam mooy eh, ñeenteelu ponk ci lislaam ndax mën nañoo wax ne lislaam euh, ab néeg la néeg nag ku xam na ne day laaj fondement waaye laaj ay ay poto laaj séenage euh, laaj ay brique waaye dafa am loo xamee ne ci lislaam dafa taxaw taxawaayu ay poto ay keno loolu nag koor def cee bokk bokk na ci ngëneelu koor ni ko oustaz Serigne mustafa waxe eh, ci leen wàcc alquran inna anzalnaahu fi laylatil qadr laylatul qadri xayrum min alfi shahr nee na maa wàcc koor ma wàcc alquran ci guddig laylatul qadr nee na laylatul moo gën junni guddi dellu waxaat faneen ne chehru ramadan alladi unzila fihi quran hudan linnaasi wa bayinatin min al furqaan nee na wi nga xamee ne ci leen wàcc alquran te alquran mooy njub ji nga xamee ne mooy leeral lu nekk yoon wa ci gën a jub alquran moo la koy leeral moo xam lu aju ci pas-pas la wala lu aju ci eh, jaamu yàlla la walla lu aju ci eh, adduna la wala lu aju ci alaxira la inna hada al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam suñu borom dafa ne eh, alquran mooy lu nekk rek moo lay wan yoon wa ci gën a jub yoon wa ci gën a baax ci li aju ci dundug doomu aadama yépp kon alxuraan mooy dellu mooy dellukaayu bépp jullit ngëneelul weer wi nag li ko sabab mooy alxuraan bi ci wàcc ndax ku ne am xam na ne alxuraan euh, du def alxuraan waxi suñ borom la kon melo euh, melo suñu borom la loolu moo waraloon euh, sëriñ Touba. Euh, teg ko foo xamee ne tegu fa laneen bokk na ci li nga xamee ne mooy moom la yàlla jagleel sëriñ Touba ci weeru koor sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana wax na ne ci weeru koor ci la sëriñ Touba njëkk gise yonent bi jëxran ci weeru koor ci la Sëriñ Tuubaa njëkk gise yonent bi ci lu dul ay nelaw maanaam gis ko yaqazatan eh, waaye itam al wirdul maxuud ci weeru koor la ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa jox eh, loolu moo waral Sëriñ Tuubaa yemalewutoon ak alxuraan dara ne ko Sëriñ Moustapha waxe waaye itam yem yemaliwutoon ak weeru koor ak dara xasida gim ci bind eh, ngir di ko eh, tatagal ak di ko teeru ak di wax ay ngëneelam ak lu mu ëmb ci aw yiw eh, ku ci nekk ci ñun dégg nga ko yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat taati wa sadadi nee na yow mi nga xamee ne gan ñëpp yaa ci gën ana li tax nga gën ci danga nga indaale ay xéwal indaale aw yiw ana gan googu luñ koy terale lin koy terale mooy ay jaamu yàlla ak ak njub ak lu baax ndax ni ma ko waxe loo ci def ci aw yiw suñ borom moo lay fayal boppam te tabuk suñ boroom ak yërmaaneem moom lay jëfandikoo bu lay fay kon li muy fayee nit ci weeru koor eh, dara kenn xamul lu mu toll bokk na ci ngëneelu weeru koor itam bu weer wi duggee dañuy e, tëj bunt sawara yi waaye ubbi bunti àjjana yi loolu itam e, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ba pare jëng seytaane kon loolu lépp Euh, moo taxoon euh, euh, moo taxoon sunu sëriñ Cheikhuna Ahmadul Xadim yemale wutoon ak weeru koor dara bu weeru koor ñëwee nee na mbégte mi daan am mbégte mi daan am weeru koor nee na daawu ko am lu dul ci weeru koor nee na bu bu ñëwee day yokk. Euh, jàngale yim daan jàngal taalibe yi di leen fàttali ngëneelul weer wi ak li weer wi ëmbu ci aw yiw bokk na ci ngëneel li moomit ni ko Cheikh Moustapha waxe euh, laylatul qadr laylatul qadr euh, xayrun min alfi nee moo gën junni weer junni weer mooy buñ ko bu ma juumut juróom-ñetti fukki at ak lu topp ak ñett kon nga xamee ne euh, barkeb laylatul xadar euh, kenn xamut nu mu toll loolu moo yooyu yëpp daje ci weeru koor ak màggaayam mu tibbee ko ci alquran ci la wàcc loolu moo taxoon eh, ak wàccuwaay bi ko eh, suñu sang ba Cheikhuna Ahmadul Xadim jox loolu moo taxoon soxna si tànn ko ngir du di ko dundal di di ko dundal di dundal alquran ndax sëriñ tuba euh, ku ne xam na ne alxuraan moom moo moo doonoon léppam kanzil kitaabu wal xadiis wal adab laa jamaa fiddatin wala jamaa zahab nee na sama sama alal sama trésor mooy alxuraan ak sunna Sëriñ moom alxuraan mooy alalam nee na liñ koy wabil kitaabi wal xadis yasbutu laa bi dahabin mawruufi bi xidmatil kitaabi wal xadis yasbutu laa bi dahabin mawruufi nee na liñ koy donn li nga xamee ne moom lañ koy donn bu fi mooy liggéeyal alquran ak liggéeyal sunna ndax euh, ku nekk ci ñun lan koy doon mooy alal Serigne Touba nag moom alquran la defoon alalam ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa kon lu am rek ci ñaar yooyee la ko ame ci alquran ak ci liggéey yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci di wane sunnaam wane ay jikkoom yu rafet waaye itam di julli ci moom salaatu sitta bi madxe sitta tatihi batta ma tisaai nee na ah, at mi dama ko xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi dama ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaajub ñaareel bi ma ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ànd nag di koroy roy di ko kon loolu lu am solo la ndax eh, yonenti bi sallallahu alayhi wa mooy model bi nga xamee ne moom la suñu boroom andi ngir jullit ñépp def ko royukaay qul innama ana basharu mislukum yuuxa ilayya annama ilahukumu ilahun waaxid suñu boroom def ko digal mu wax euh, jullit ñi ne leen man kat mbindeef laa waaye du ma mbindeefum kese mbindeef moo xamee ne euh, suñu borom dafa wàcc ci man alquran euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggaaya maazamatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mën nañu wax ne ci loolu lay dellu maanaam mbindeef la day am ay bëgg-bëgg am yëg-yëg ami bànneex ami jafe-jafe yi ni ja yi nit yëpp ci àdduna waaye àndak loolu lépp dafa nekkoon ku tegu ci siraatal mustaqim dafa nekkoon ku jub koo xamee ne li eh, li muy bari ay bànneex yooyu yëpp loolu taxutoon mu jàdd yoon wi nga xamee ne moom la ko eh, suñu borom tracé sallallahu alayhi wa sallam boroom kër la woon jaar na ci ab liggéeykat la woon